ay partenaire am Dieda World Trading Clinique Marie ak Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. Euh, euh, euh, dans les mercredis du docteur Konaté. tey nag euh, on va un tout petit peu tey dañuy wax waxu actualité tuuti parce que xam naa ne temps yi yëpp dégg ngeen ci média yi ñuy wax waxu benn euh, feebar euh, tur bi nag dafa xaw a dafa xaw a garaaw nag tur bi moom chikungunya chikungunya wax ko sax dafa xaw a metti dafa mel ni rek may wax turu sama benn xarit sama benn collègue ñu koy wax Sila Thiam gis ngeen Sila Sila Thiam bi nu mu naqaree wax si Koungheul noonu la la la la la a metti wax xaw a bon mais c'est pas une maladie très grave par rapport ak euh, tour bi mais euh, dafa nekk euh, d'actualité donc comme d'habitude dañuy commencer par def définition Euh, c'est une maladie virale c'est-à-dire euh, li nga xam ne moom moo koy indi benn euh, virus euh, moom moo koy andi ci même tour bi chikungunya li koy transmettre li nga xam ne moom moo ñu koy jox benn moustique benn moustique bu xaw a doy waaru ñu koy wax Aedes des am na ñoo xam ne dinañ la ne moom mooy moustique tigre Euh, pour amateur euh, de football yi en général ñoom euh, dinañ ko woowee moustique Juventus de Turin dafa mel ni rek dafa sol maillot Juventus de Turin parce que dafa am ay rayures wala moustique tigre c'est-à-dire rayures yi nekk ci deru tigre yi donc moom moom nañ ko woowee donc. Euh, musique bi su jamee benn nit bu feebar euh, euh, dafay màtt beneen nit donc transmettre ko ko donc noonu lay def bu fekkee donc les conditions sont réunies mu màtt Masamba Masamba. jële ko si Massamba yóbbu ko si Mademba ainsi ainsi suite et puis dem ba benn instant boo xam ne mun na entraîner ce qu'on appelle des épidémies c'est-à-dire tas si benn dëkk ñun nag ko Sénégal dañu am chance tuuti euh, dafay euh, dafay euh, survenir sous un mode endémique c'est-à-dire dañuy am ay poches yu ndaw rek ay poches yu ndaw pour euh, sans pour autant donc euh, mu mu déborder euh, naka lay euh, manifester wu feebar bi chikungunya comme dafa mel ni palu ah donc gis ngeen feebar yu bëree nuroo nañu palu alors que duñu palu donc bu fekkee nit ki dafay yëg ci yaramam loo xam ne tàmm ko yëg su li nga xam ne moo gën mu ñëw seet si ñu ñun nga xam ne ñun ñooy spécialiste yi euh, bu fekkee seet si nañu ñun dinañu mun a xool euh, lan moo gën si moom dinañu mun a def euh, diagnostic différentiel bi li ñuy wax diagnostic différentiel bi andil ko solution donc par rapport ak li nga xam ne moom moo ko andi. Euh, li koy euh, nu muy manifesté woo nu muy manifesté woo le plus souvent benn euh, fièvre la fièvre bi intensité bi dafay variable mun a nekk une petite fièvre en intensité bu ndaw et puis euh, comme mun na manifesté wu nekk une euh, fièvre boo xam ne dafa am une grande intensité dem ay trente neuf rarement quarante degrés fièvre bi dafay ànd ak nit ki mun na am ce qu'on appelle ay euh, sueur ànd ak euh, ay euh, frisson donc yooyu yëpp donc da nga koy retrouver donc si si palu bi à part bi nit ki mun na jànkonte am ce qu'on appelle des douleurs articulaires douleurs articulaires nag si chikungunya ce sont des douleurs articulaires qui sont très invalidantes donc dafa tar ah dafay nit ki vraiment articulation yi dañuy métti ay métit yu yu yu yu jéggi dayoo boole ko ak ay métit ci ay myalgie euh, mun nañu am ce qu'on appelle également des des troubles digestifs ay nausées ay vomissements donc signes yooyu yëpp en général daf ñuy euh, Euh, orienté vers euh, vers vers vers un palu euh, mais ñun xam nañu lan nañu war a def pour donc def le tri def distinction distinction bi entre genre feebar yu mel noonu chikungunya ak ay ay palu donc évolution bi le plus souvent c'est une évolution euh, favorable sous traitement donc euh, en général traitement bi sax bon c'est un traitement symptomatique euh, dafa am euh, loo xam ne suñ leen ko joxee ñu lutter contre fièvre bi lutter contre douleur articulaire yi par exemple contre pour douleur articulaire yi Euh, si ñu joxe ay antalgiques ça ne passe pas on peut aller jusqu'à donner des anti-inflammatoires loolu su nit ki su si boolee di lekk bu baax di naan bu baax euh, mun na am chance très rapidement donc euh, symptômes yi disparaître ah symptômes yi disparaître donc j'ai parlé euh, un tout petit peu d'une euh, partie du traitement donc euh, c'est le traitement symptomatique beneen euh, beneen partie traitement bi c'est le traitement préventif traitement préventif mun na nekk individuel nit ki mu ñàkk boppam mun na nekk collectif Euh, toujours est-il euh, pour la prévention donc euh, mun nañu et nos équipes du ministère de la santé et de l'action sociale se sont attelées à ça et puis avec les services yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a toppatoo notamment service suñu service d'hygiène donc ñu ngi def euh, saupoudrage bi pour euh, saupoudrage donc euh, d'insecticide donc pour mun a éliminer moustique bi ak gîte larvaire yi donc non seulement ça donc nit ñi ñu ngi leen di distribuer ay moustiquaires ay moustiquaires imprégnés donc pour donc seen protection individuelle donc euh, essentiellement tey euh, loolu nañu amoon pour andi leen donc euh, dans le cadre donc des mercredis du docteur Konaté donc on va pas terminer l'émission sans remercier suñu collaborateurs yi euh, notamment suñu caméraman Abdel qui est toujours là toujours présent ñu ngi remercier monsieur Ndofène Diouf également euh, également qui est actif offensif donc euh, qui qui gère bien son émission euh, mais en même temps maa ngi remercier également Euh, suñu ministère de tutelle le ministère de la santé et de l'action sociale qui fait un travail remarquable donc euh, dans le cadre donc de la de la prise en charge donc euh, de cette euh, maladie yàlla na dégg seen intervention yi euh, si presse bi ak yëpp donc vraiment comme ni ñu koy ñoom ñi ngi liggéey liggéey bi ñu ngi job job bi. en même temps ñi ngi remercier également euh, euh, waa ordre des médecins du Sénégal et à leur euh, tête le docteur Boli Ndiaye Boli le docteur Boli donc qui fait également un travail remarquable donc à la tête donc de cette structure vraiment Donc, euh, je ne vais pas également terminer cette émission, euh, émission beaucoup particulière euh, hein, parce que je veux rendre hommage à un champion, hein, un champion qui est tombé. Donc, euh, je veux parler de Tonton Seydou Touré. Euh, suñu tonton la et un grand monsieur c'était le vice-président de la fédération sénégalaise de euh, euh, de judo donc euh, qui nous a quittés et qui va être enterré donc le jeudi prochain levée du corps à 9h donc à l'hôpital euh, principal enterrement au cimetière donc musulman de Yoff Euh, tonton merci et euh, yal la yàlla yërëm yé yéegal la si àjjana yu gën a euh, kawe fiyandaw si merci aux auditeurs et à la prochaine merci beaucoup